tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo te mooy tàggu weeru koor tàggu weeru koor mu mel ni weer wi biñ ko jubee àndoon nañ ak yéen ci waajal weeru koor biñ ci duggee it ci ndimbalul suñu borom àndoon nañu ak yéen ci dundal weeru koor ba ñoo ngi ci waxtoom yu mujj muy weeru koor wu wi kon ñu tuddee xikma bi tàggu weeru koor ñaan suñu borom nag weer wi yàgg nu fay fekk te yàgg ñu fay fekkee ak mën ak tal Eh, ak ndimbalul suñu borom ñu yàgg jëf mu yàgg noo nangul ci darajey weeru koor daraje alquran daraje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daraje Cheikh Bamba xaadimu rasul ma tënkoon ci nag ay bayit tënkee ko weeru koor muy juróom-ñaari araf ma wayoon ko ngir tàggoo ko weer wi buñ noppee nag bayiru mujj wa la muy ñaan danañ ci indi lenn ci ay ayat ci eh, alquran kon weeru koor dama ne woon weerum ngëneel waa ngi tàggoo nag du ngeen téye ko ne leen ko bu mu dem dañuy weetal dañuy namm ko yaa tax ba yàlla yërëm jéggal goreel sawara mbooleem ñu doon woor li wacillaahi bul wàññi ko atum déwén rek nga fiy del seeti boo fi jógee te yow sangan dafa neex lool doo ñu sàppi mukk rambaajkat ak fenkat ak jëwkat yi boo fi jógee fokkat yi mbaa duñ fa jaaree dellu seeni jikko kaaraange daal yaa ko doonoon tax nga ñëpp yaru defar nga sunroo yi mbaadoo dellu ñuy bàyyiku weer wépp koo gis ma ngay jëf ak di wax lu rafet booleeg di partager lam am yàlla na buur nangu ko ragal boroom bii di rabbul arshi mooy diplôme bi ñëpp doon wut ci weer wi yàlla nañ gañe ko diplôme bi ñu doon wut ci weeru koor yi benn diplôme rekk la muy ragal yàlla yàlla nañu ko suñu borom wërsëgalee jaamu yàlla yëpp nag suñu borom daf ciy wax ne li ko ci yitteel diggam ak jaam bi mooy ragal yàlla gi jaam bi ragal yàlla ba tax mu koy def muy ajag mm, julleeg lépp rek alxajju ashhuru maalumaat man farada fiihinna alhajja fala rafasa wala fusuuq wala jidaala fi lxajji ama tafaalu min xayrin yaalamhu llah wa tazawwadu fa inna xayra zaadi attaqwa ragal yàlla rek nee na xar yi ngeen di reena ci tabaski sax deret ji ak yàpp yi man yàlla aw ma soxla li ma am soxla mooy ragal yàlla gi dox sama diggante yéen ngeen ma ragal ba tax ngeen ko def lan yanaala allaha luhumuha wala dimaahu walakin yanaaluhu taqwa minkum ragal yàlla yi dana waral lu bare bare loo xam ne ni kenn mënu koo lim waaye dañ ciy jukki ay yennat rek yoo xam dañ koy tegtaloo ci alquran ragal yàlla dana waral xam dana tax suñu borom may la xam-xam bu bare bare bare bare ndax moo ne wattaqullaha wa yuallimukumullah na ngeen ragal yàlla ndax yàlla xamal leen lu ngeen xamutoon ragal yàlla dana waral yërmande sun borom yërëm la ndax moo ne wattaqullaha laallakum turhamun ragal yàlla dana tax sun borom nekk sa wet fu mu toll mu lay assisté nga xam du la sori mukk ndax moo ne waalamu anna allaha maa almuttaqin inna allaha maa allasina taxaw na ngeen xam ne kat yàlla way ragal yàlla yi la àndal ragal yàlla dana tax sun borom tabaraka wa taala musal la ndax moo ne musal nañ gaa yi nga xam dañoo gëm yàlla ba noppi ragal ko na la alladina amanu wa kaanu yattaquun ragal yàlla dana tax bu ëllëgee yowmal xiyaam nga bokk ca euh, VIP yi maanaam ña gën a kawe ci mbindeef yi ndax moo ne àdduna dañ ko rafetaral yéefar yi bañ koy xeebee jullit ñi way gëm ñi waaye nag ëllëg yowmal xiyaam moom ñay nekk ci seen kaw ñoom ñëpp mooy ña ragal yàlla zuyina lillazina kafaru alxayaatu dunya wa yasxaruuna min allazina aamanu wallazina taqaw fawqahum yowma alqiyaama ragal yàlla dana waral taraanga dana tax suñ borom teral la ci kaw mbindeef yi ndax moo ne inna akramakum inda allahi atqaakum eh, ki gën a ragal yàlla ci yéen ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ragal yàlla yi dana tax suñ borom di faj say aajo di la wërsëgal ci loo yëgut ndax moo ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa min haysu laa yaxtasib ragal yàlla dana tax suñu borom tàbbal la àjjana ndax moo ne fa fattaqullaha laallakum tuflihun tilkal jannatu allati nuurisu min ibadina man kaana taqiya ah na ngeen ragal yàlla kat ndax yàlla yërëm leen tàbbal leen àjjana ja nga xam ne nii ëllëg jaamam yi ko ragaloon la koy donale lépp kon nga gis nga gis ne loo ci gis rek lam koy mujjantale mooy at taqwallah ah, te it jaamu yàlla goo mën di def ak lépp loo mën di def la ci yàlla yittewoo mooy sellal gën ca sellal ndax nee na diine sax dañ ko dañ leen ko digal ngir ngeen di jaamu yàlla waaye nag dañ koy sellal bu leen bëggee yàlla nangu ko wa ma umiru waaye muxlisina na alaa lillahi diinul xaalis waaw alxaalis faaw nag sell gi rek mooy tax yàlla diina ji eh, yitteel ko nee na itam waa axlasu diinahum lillah fa ulaayka ma al muminin kon ixlaas bi waxtu bu nekk suñ borom daf koy indi kon yàlla ñu yàlla defal euh, jëpp jëf ju ñu jëf rek ñu boole ca ragal yàlla ak sellal jëf ja te suñ borom nangul nu ko weer wi kon noo ngi ci ndokkeel jullit yëpp wax dëgg yàlla jullit yëpp sonn nañ ci ñëpp bëgg nañ lu baax ñi jàng nañ ci lu bari ñi julli nañ ci lu bari ñi joxe ci lu bari dimbalee ci te lépp sàkku aw yiw ak tiyaabu rek moo ko waral te am na ci nag bu baax a baax kon ñoo ngi leen ci baalu àq nag bu baax a baax a baax a baax tey ñaan ngeen jéggal ñu tamit ngeen baal ñu waaye ñoo ngi leen ci ñaanal bu baax a baax tey sàkku ci nit ngeen ñaanal ñu ndax seeni ñaan it euh, yitteel nañu lool lool lool lool yàlla na suñu borom dimbale defal ñu tawfiq